soo nee damay solutionner pour ñu am ouverture boo xamee ne daf ñu war a mën a permettre ñu dem ci élection yi ci jàmm def élection yi ci jàmm génn ci élection yi ci jàmm dem liggéeyal Sénégal alors la solution la plus sérieuse et la plus juste qui soit mooy fa ñu jaaralee kalifa sàll jaarale fa Karim ñooñu les deux en même temps ñoom ci seen bopp ñoo waroon doon champion yi nga xamee ni bu fekkente ni ah si sama compréhension wu Sénégal ci sama compréhension wu état de droit ci sama compréhension wu recherche bi ñuy wut ay solution je pense que classe politique bi sax yëpp en général ñu yéene Sénégal jàmm yëpp ñoo war a dox pour que bu benn justice condamné ñetti nit xaw ma fan la ñuy muusawaane ba ñaar yi ci kenn ki des ci biir pax bi. Mm-hmm. mais la justice est impersonnelle. bien sûr elle devrait être. Elle ne donc, elle être. mais la réalité aujourd'hui, parce que je suis un acteur politique, man. nekk naa assemblée nationale ñu am liste kenn si suñuy candidats yi nekk député ñu lank ndaare ni duñu ko bàyyi amul immunité parlementaire man ak yow ak sénégalais yëpp ñoo seetaan ñu wëri wëri ba mu neex leen duggaat ci biir assemblée nationale ni dañuy muri immunité parlementaire boo xamee dañ ko néewoon loolu c'est une monstruosité te benn cas laa la signifié yeneen kaa yëpp c'est c'est légion par parloo dafa am ci réew mi et c'est peu de le dire il faut pas que ñu naxante tey jii bu réew mi tàkkee jafe-jafe yi ñu am nit ñi di dee <laughs> c'est pas parce que réew mi dafa jub de c'est pas que ñëpp dañu taxaw ci seen walla c'est parce que am na ay système boo xamee ni na mu waroon taxawee taxawewu ko et la justice sénégalaise je sais que ni ñu ci ëpp si ñoom ñu ngi def seen liggéey di góor góorgóorlu mais am nañu benn tendon d'Achille mm-hmm. tendon d'Achille bi mooy liaison bu jéggi dayoo bi nga xamee ni am na entre le parquet et le ministre de la justice via le président de la république te acte yu ñuy gis tey jii ñaare ngi yoo xamee ni seen traitement du yom mukk boo bokkee Benno Bokk Yaakaar ak boo bokkee ci opposition bi et particulièrement boo bokkee ci Pastef jàpp naa ni ni ñu lay xoolee ak ni ñu lay attee bokkul te loolu c'est les faits je mhm. n'invente rien il faut que ñu bu ñuulee nañ ñi ñuul na kukk bu weexee ñu ne weex na taal loolu mooy dimbali nit ñi et je pense que ni dans le secret de leurs cours et tribunaux juges yu bare ñu ngi ñaan yàlla bis boo xamee ni dañ leen leen bàyyeel ak seen prérogative ñu wéet ci wéeru ci li nga xamee ni mooy loi yi nekk ci réew mi ak seen intime conviction pour arbitrer diggante yi ci yoon boobu lañu war a tabax dem mais en la réalité aujourd'hui il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans la justice sénégalaise. dans la justice sénégalaise euh, tey jii su ma la déggee ci li nga jot wax euh, ci tënk moom moo di ne kii di Khalifa Ababacar Sall kii di Karim Meïssa Wade li nga xamante ne moo di yoon gañ leen may fi mu nekk nii ngir ñu bokkaat ci langue gi te pourtant cour ba taxawoon tey àtte kii di Karim Wade dañ ko neenal ne baaxatul indi fi leneen ci anam gi ko defee ñu bëri dañu jàpp ne. ku yore alalu réew mi gokki ko ba pare doo ko seetal sa bopp ci leneen mais ci ñu baal la ndax loolu xel mun na koo nangu te ni ñu leen wotalee assemblée dafa mel ni ñaari personne yooyu la ciblé woon mais pas la masse. loolu aussi problème la xam nga moo tax réew mi réew mu ñu war a defaraat la réew mu ñu war a defaraat la dans les conditions normales de température et de pression cas yu mel nii warul am suñu jàppale suñu justice ba mu nekk na mu war a nekk. nga xameen exécutif di ci dugg décision de justice pour un acteur politique majeur su fekkente ni justice bu taxawee na mu war a taxawee la atte nit ñi dans les règles de l'art un acteur politique majeur bu ñu la condamné te mu wér ni lii ñu la condamné dab na la ci xaalisu réew mi tu es disqualifié à vie pour réclamer li nga xamee ni mooy mooy mooy confiance su sénégalais yi dans les principes mais tey jii li lëndëmal affaire bi mooy on a le sentiment que parparloo dafay jiitu avant convocation wu acteur politique bi par parparloo da koy topp ci procédure bi parparloo da koy topp ba ñu yóbbu ko kaso en détention préventive da koy topp ba ñu teewal ko ci kanamu tribunal que ce soit à la cour d'appel ou à la cour de cassation fu mu ci mënti dem on a le sentiment que nii les choses lijjanti nañ ko démb avant mu yegg si foofu euh, loolu mooy suñu problème ñun moom la ñu am ci réew mi te moo indi problème yi ñu am yépp mais dans bu ñu liggéeyee suñu réew et j'espère vraiment que après deux mille vingt quatre ci yoon yooyu rek la ñuy dox mooy ñu mën a dem ba nga xamee ni ñooñ politique yi dañuy rester ci seen espace te mat ko feesal ko ba mat sëkk justice beeg juge yi reste ci seen espace di àtte diggante yi citoyens yi am sañ-sañ nekk ñi nga xamee ni ñoo war a nekk en dernier ressort la seule préoccupation dans le pays ñi ñu war a liggéeyal ñi ñu war a tarbiya ñi ñu war a xëyal ñi ñu war a gontal pour que Sénégal am jàmm mais en l'état euh, je pense pas que ni nii ñuy defee nii rafet na yaakaaruma ko gëwuma ko en tout cas moi personnellement ça me gêne que ñett nit dans un même environnement avec un même problème ñaari génn kenn fa des fa c'est pas le Sénégal ndax ngor gi ñu doon wootee ak cohésion bi ñu doon wax ci wootee kon ci opposition bi tey jii da gis ne lii euh, salfaañe na ko. opposition Sénégal moom il faut que ngeen xam ni ñoom ak Sénégal yi ñoo yem. c'est-à-dire. mooy que ni ce n'est pas que da nekk ci opposition bi tax na nga jub wala nga maandu wala nga doon un patriote bi soit day nekk nit ku jub moo xam mu nekk ci pouvoir wala mu nekk ci opposition. wala mu nekk kuy tappale boo xam dafa nekk ci pouvoir wala mu nekk ci opposition heureusement tey jii ku yàgg ci journalisme laay waxanteel xoolal 2000 ba fi tey jii xoolal opposition bi di nga si gis numéro yoo xamee ni am nañ ci couleur bu nekk ci diiru mille ak mille 2023 woote defendre nañ fi troisième mandat contre nañ fi troisième mandat doo xam ban boor la ñu taxawee ban garantie leen nit ñu mën la jox su fekkente ni dañuy gérer sa réew parce que loxo du tàmm gudd ba pare bëgg gàtt il faut que ñu décomplexer caricature yooyu ñuy teg ci bopp nit ñi ah non yow opposant nga yaa fi gën yaa fi gën a jub yaa fi gën a maandu c'est pas le cas parce que man dund naa ci biir yeewi askan wi mais ay injustice yoo xamee ni manque de démocratie boo xamee ni manque de transparence boo xamee ni c'est inacceptable pour des gens yoo xamee ni dañ nit bu ëllëgee dañu war a gérer Sénégal et pourtant c' dans l' que ça s' est passé. apparemment mu mel ni li xew assemblée. jeudi daf la jox raison ci Yewwi mais bien sûr et ça ne m'étonne pas que mu mujjee teere fii parce que gis nga. mais bien sûr yow léegi ñun man ak yow ay mag lañu ñu si réew mi ah xam nga yàgg euh, depuis yaa amul lu ñu fi gisul. Hmm. amul lu ñu fi deful ci pratique politique. on a de l' maintenant beaucoup d' expérience moo tax ci xam-xam la ñuy waxee. mais bi ñu bi ngeen di génn Yewwi dañ leen caricaturé woon ne da ngeen mer ngembu parce que bokku leen ci tànneef yeeg yi ni mel tey assemblée li fa xew jeudi dëgg diggante euh, taxawu ak euh, Pastef wala la moitié de yi tey ji yéen naka ngeen koy apprécier yéen ñi génnoon. non xam nga moo tax man la mag man naa bàyyi si réew au départ bi ñuy defee affaire yooyu ils voulaient nous appliquer une triple peine. première peine bi mooy escroquer ñu deuxième peine bi mooy boole ñoog sénégalais yi ndax boo yooxoo ñu ne liñ ko falul moo tax li mu jotul moo tax et cetera et troisième peine bi gënoon grave mooy ils allaient exploser nos partis parce que dañuy jël suñu ay nit engagé leen ci benn combat ñu dem ci ba am ndox ci put boo xëyee suba ni génn leen ça pose problème ça pose problème mais comme ñun ay mag lañu ay acteurs politiques lañu moi pris acte la ma leen war a wax xaar waxuma ko ci mbedd mi de man déggu leen ma ci mbedd mi li ma leen wax ci biir yeewu askan wi weñ mi ci daal dee falaa ko war a waxee falaa ko waxee bi ma ci génnee nag j'ai été j'ai pris de la hauteur je voulais pas gêner la dynamique bi nga xamee ni ci la ñu nekkoon pour dem ci ay élections mais en tant que acteur politique te bëgg see yàgg xamoon naa ne ala kulli xaal ku toog seetaan leen tuuti rek di nga gis liñ doon nëbb yëpp feeñ ci biti. mais est-ce que du liñ doon wax naan euh, il faut pas côtoyer les gens du système ceux qui ont roulé leur bosse un peu partout avant d'en arriver à Yewwi parce que bi ñuy créer Yewwi aussi la dynamique c'était que se départir de certaines tares des politiciens. xam nga dama lay jox histoire histoire yu Yewwi fan la jógee en réalité gis nga bi Thierno Alassane Sall day def euh, présentation livre mhm. si laa fa jël kàddu ni man dinaa jóg. waxtaan ak képp koo xamee ne acteur politique nga pour ñu dajale opposition bi j'ai fait le travail dama bind ay TDR ku nekk wala boog ñi ci ëpp dem naa seen kër. ah ñu ne moo dox loolu. déglul rek déglul rek je te raconte la vraie histoire bi nga xamee ne moo nekk à la base de la création de l'unité de l'opposition man maay bind ay TDR. dem si ñoom ñëpp y compris xalifa ku nekk ma wax la yéene ji ma am ak nécessité bi nga xamee ne suñu bëggee indi une alternative crédible war nañ ko dox dajaloo ku nekk ma bàyyi la ak TDR yi ku nekk nga def ci say amendement et de manière générale ñëpp ànd ci ba toog ba Seydou Sarr daal di ni non attends xalifa moo mag ci classe politique bi apparemment te mu ngi génn ci injustice bu jéggi dayo bàyyi ma dem ma woowaat ko ma jël rendez-vous ci moom ñu daw ñu toog ma ne ko sama waay lii may def nii ci yow la gën a yey ndax am nga at yi et j'estime que tu as été victime d'une très grande injustice xam naa ne man crédible naa pour dajale opposition bi mais am dossier baa ngi nii je lui ai fait le point sur chaque dossier ku nekk la nga ma tontu la ngay xaar ak say attentes lii moo indi première démarche bi nga xamee ne moo indi unité de l'opposition ñu doxaat tuuti problème Ousmane Sonko jib dynamique bee yéex lool man Bougane Gueye Dany girasi Guirassy man ak Bougane ñu ñëw fii ci siège FSD/BJ ñu waxtaan fii après ñu woo Moustapha Guirassy ma bindaat yeneen TDR yoo xamee ni moo créé m ñu taxawal m boobu ñu àndandoo xeex ci xeexu mars 21 mars boobu euh, ba yàlla def li gën mooy libération Ousmane Sonko ñaari démarche yooyu ngay fusionné moo indi Yewwi Askan Wi donc su amee un premier acteur et un premier contributeur comme je le fais d'habitude man yàlla dafa ma barkeel ci wàllu googu depuis 2000 boo ko seetloo chaque fois que ñu nekk ci situation yu compliquée boo xoolee ba ci biir tu vois toujours ma trace mais nekk na trace boo xamee ni je ne revendique rien parce que damay def sama warugar lii mooy li nga xamee ni moo sos yeewu askan wi te kenn du ko dindi. mais dans ces conditions si loo xamante ne mun nañu wax ne yaa ko nampatal war nga koo mun a bàyyee noonu ndax injustice doo nekk ci biir itam xeex ko ngir mu jóge fa ndax li ngeen bëggoon mu ñoom. si la ñu nekk ba léegi xam nga bu fekkente ne dañoo sos benn mbir. avec un objectif parce que man bañ koy sos yàlla mutim xamoon na ni objectif bi moo doon am un candidat fort de l'opposition boo xamee ni même bu fekkente ni comme doomu adama yëpp dina am lu ko manqué ci wàll wi am lu ko manqué ci wàllu wale sama présence man ak ku mel na man présence su ma sàmba wala ma demba si trajectoire am positivité yooyu dina construire benn écosystème boo xamee ni dina dajale Sénégalais yi suñu am certitude ni la woon day woon ni c'était ça boo seetee TDR yeeg yëpp esprit boobu laa ko bindee te loolu laa mos a taxaw waaye wolof daf ni jéem télé gàcce dee sim parce que suma objectif mos ta changé li ma dul may Macky Sall la ci manque de transparence ak ay taxawaay yoo xamee ne amul intéret ci Sénégal du ma ko nangul kenn ci biir réew mi Et je serai encore plus intransigeant si je pense que ça vient de l'opposition parce que ñooñu amuñu droit compte yaakaar gi sénégalais yi am si ñoom tàbbal escroquerie te yeggaguñu si pouvoir te bokkuma si ñi nga xamee ni ñu gis musiba buy dem ñuy taxaw di di di liyaar ak di masla ak dof doflu ba bu ëllëgee bu taxawee ndax wolof nee na bare na lu feeñ ci sëy ni yoo woon na sa ngoro la dañ ko nanguwul woon fay et j'ai tiré la sonnette na te comme man Sénégal moo ma intéressé sa li ma intéressé mooy ñu ittewoo Sénégalais yi ak seeni bëgg-bëgg bu ma demee ba gis ni lii nga xamee ni déjà bi ñu néewee doole amuñu kàttan amuñu taxawaay ñu ngi parparloo ñu ngi def compromission ñu ngi signé charte ba pare violer charte boobu et jusqu'à présent ils ont pas été capables def le point avec tous les acteurs ci li nga xamee ni moo di Euh, euh, euh, listu listu législative yi mais ku mel noonu sur quelle base tu vas dire que nit tu veux de la transparence dans ce pays c'est un problème donc fi ñu toll nii léegi dañoo am comme ni que réew mi yëpp réclamer besoin un impérieux besoin mënatuñu xaar nit ku crédible nit ku am jikko nit ku maandu nit koo xamee ne kàddoom da koy sàmm dafa am solo torop ci réew mi te loolu affaire politique politicienne yi ñu tàmbali nii tant que ñu ngi koy nekkal du ñu mës génn ci problème. vu la tournure des choses Ahmadou kon yaakaar nga ne liste yi ñu invalidé woon noonu c'était fait su ñu gisee ramification yi am ci bii boor ak bële boor. Ah! ak ni mujjee. je n'irai pas jusque là-bas dama ci dugg ba ba si foofu mais daal xam naa ni. waaye xel tey na ci. xel tey na ci mais pas dans ce sens-là man xel tey na ci. Parce que simplement, c'était une grande déception. Imaginez que ni, si on avait fait ça dans les règles de l'art, que nous aurions dougou, dougou, nous aurions bok, bokk Je suis sûr que les résultats, on aurait pu avoir beaucoup plus, ce qui aurait consacré une véritable dualité dans le pays. On a raté quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'important pour le pays. Et là, le Sénégalais, il et malheureusement li tax ñu rate ko mooy des appétits li tax ñu warate ko mooy au lieu que ñu xool dans l'immédiat ñoom ñi si ëpp si ñoom dañoo projeté wu woon ci déjà ci élection 2024 yi ku nekk yaa ngi seet koy éliminer léegi avant ngay yegg mais bien sûr